salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di siyaare suñu kilifa gi nga xam ne mooy Sëriñ Hamsatu Mbàkke moom Cheikh Abdou Ahad ak suñu wajur wi di soxna maam Awa Mbàkke ngi fii nag ci Daaru Salaam Burki Barka ci liggéey bi nga xam ne Sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Ahad santoon na ko Cheikh Hamsatu Mbakke maam Cheikh Abdou Ahad ñu àndanteeg waa daairatu Majmahun Nurayni bi muy fédération bi ñu ñëwoon fii ànd ak soxna maam Awa Mbakke Falilu fii ci Tuuba euh, Daaru Salaam Barga di nekk ci liggéey sëñ bi ñenn ñi nag ñu ngi ñu ngi ci woon ci liggéey bi euh, ci mbàcc mi ak njéeri mi ak roñ ngooñ mi yóbbu gerte gi lépp ñu ngi ci woon ñenn ñi nag ci mbokk jigéen ñoo nekkoon ci waa waañ wi ci njiitalu soxna mu ngoone Ngom ak Serigne Modou njaay ñoo nekkoon ci waañ wi jaayante bàyyi seen njiite yëpp ngir liggéey liggéey bépp ñu ànd suñ suñ suñ suñ suñ jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñu kër soxna si muy Serigne Aliou Badara Lay kon xam naa soxna si daal mi feddali ak taalibeem ci sëriñ mi nga xam ne mooy Cheikh Amsatou Mbacké moo Cheikh Abdou Lahad te ñun moom duñ doon lu dul ay taalibe ci taalibe la ñuy doon ci lañ yaru ci lañu nampatal bañ toll nii ay taalibe képp la sax ba faw ne ak taalibe rek kay ñor te moom la ñuy ci suñ keppaar gii muy Sëriñ Amsatou Mbacké moo moo waral nag ñun ñëpp mbokku taalibe ñu ànd ak soxna si ñëw fii di toggi berne di ko bernal gan ñi ngir yitte yi nga xam ne euh, Sëñ Sidi jox na ko Cheikh Abdou Cheikh Amsadou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad kon nag ñu wàcc kàddu gi jox Sëñ Aliou Badara Lay mu gën a leeral liggéey bi fi mu toll. ah ni nga gisee liggéey bi nag mooy ñëpp dañoo wuyu si ngir ki woote mooy Sëñ Sidi mu seblaat jël liggéey bi teg ko si si am sa moo woo mbooloo mi. fii nga ñëw nag muy dalu Soxna Maama Mbàkke moo Sëñ Fallu di kenn si jàmbaaru liggéey bi ànd ko si am sa sangam bi moom nag ba mu jotee ndigal ba tey soññ na mboolem waa këram góor ak jigéen ñu ànd moom si liggéey bi jóge fu ne liggéey si tool yi nekk te si wàllu bend bi ba mu tàmbalee ajjuma ba tey bàyyiwul benn yoon bis bu ne mu fi ak mbooloo mi nekk si mbàcc mi ak jër yi ak dajale ngooñ yi ak ak mboolem liggéey bi fi am boole liggéey bi nga xam nag daa see dak seddool li muy wàllu xéewal jëm si kilifa yi tegoon si loxo moom moom mi mu liggéey ko mu liggéey liggéey bu sell ànd ko mbooloo mi yëpp lu jëm si kilifa yi ak mboktaal yoo xam ne day ñëw si liggéey bi ngir lan ñëwoon bàkkeel si tool yi mu toolu bokki barke yi da da daaw kon nag ñoo ngi sant bu baax soxna mu ngi sant bu baax mboolem taalibe yi nga xam ne ànd nañoo moom si liggéey bi nee na mu ngi leen sant di ñaan ñu fekk koy at yu bari bari bari te lépp ànd ngërëmal sëñ bi kon nag day tool yoo xam ne toolu ngërëm la te sëñ moom dimbali jaam yi doo tax mbooñu ndax xam nga ni li fi ne sëñ bu ko neexoon du woo kenn mën na ko liggéey ak ay dongom waaye nag bëgg ñëpp jariñu doo sëñ bi woon ñëpp buñ ñëwee mën a mën ñaq mën a jëf ngi liggéey mën a dox kon nag waa presse bi bàyyi ñu kenn ñu ngi sant ñëpp seen taxawaay rafet na ñaan seeni i bi àgg ba si àdduna bi yëpp mboolem mboolem fi naa nekk man man fa àgg si bàkki Cheikh Manou Fadal bàkki Soxna Maam bàkki Fali mi nga xam ne moo lañ fekk si. gàtto sant yàlla yonent bi salaam sant sëñ Tuubaa ak Seex Bulaat di seeyal si seen seen baat di seeyal si am sa sant baax di la gërëm di nga xam ne képp ku la woo ci liggéey bi sëñ Tuubaa laa bëgg dimbale bi di sant sama mbokk taalibe yi ñoom ma ne ma nekk ci ak moom muy ba daal ma ñu moom noonu fédération na ci yëpp sëñ Badalay mi loo fi gis moom dee rek ñoom ko def ànd koog man kon nag maa ngi sant di leen gërëm di sant suñu am sax sant mbokk taalibe yëpp dama wax sama xol ko wax seebula dig bis bu dee sax suñu fa añ ko yóbbul kon bu ñëwee di benn fii rek day bu ñu fay te suñ ko mën bu ne suñu bool bi dina ko am sax ngir ngir ngir feddali euh, ndax sëñ Balla ñu ko sëñ Fall googee bañ ko mën dem bis bi ñëwee luñ ci am luñu ma dañ ko def ngir dimbi sëñ Abdu Lahat ndax jëf ñu la woon sëñ Fall muñu koo fay waaye ñu roy yonent bi ko mooñ ko ñëpp dañ dañu roy ci moom kon nag bu gisee suñu waajur dox lu mel nii ñu dégg lu mel ñu def ñun tam loolu ci lu ñu am ndax ni ko dee doo romb fii lu ñu xeeb nañ ko lu ñu def lu nekk war nañoo def lu ko jiital ndax nga sëñ fi ñu teg ak mag gi yëpp ak xare gi dafa bàyyi lépp taalib bi ñu gi ñu jaayante mu nangul ñu ko sëñ Tuubaa rek tax xool ci leen lu taalib bi xool ji moom kon ni sant dem dina gën li ma ko sama xol dafa sedd